mais xam nga li ngay wax nii. Ah. Euh, doon naa ci doon gis cohérence bu fekkoon ne ànduloo ak une partie ña nekkoon njabootu Macky Sall bu fekkoon da nga dem ànd ak Pastef ma ne ah Bara Dolly mi à 100 pour cent bu fekkoon da nga dem ànd ak ñoom Barthélémy Diaz ma ne ah Bara Dolly mi kat il est cohérent à 100 pour cent waaye nag dina jafe loolu ñu dugal ci bopp sénégalais yi ne perception bi nga am ci bilan wu Macky Sall ne Macky Sall bilan baaxul dina jafe loolu nga génne ci loxo Amadou Ba ba pare beneen affaire bi mooy da nga def livre rouge ñoom euh, waa APR dañ def livre bilan kañ bilan wu Macky wax li mu def ci réew mi fi mu jëlee Sénégal ni mu soppee Sénégal yow nga def livre rouge pour sanctionner le bilan de Macky gis nga nag liy dëgg ba dëgg mooy bilan wu Macky Sall Amadou Ba mi nekkoon euh, ministre des finances dem def ñaari groupe consultatif euh, euh, projet yi Macky Sall doon wut xaalis yëpp ñu financé ko lépp presque xaaj bi wala trois quarts bi Amadou Ba muy nekk ministre des finances lañ ko dem lañ ko dem lañ ko dem wuti Amadou Ba ñëw nekk premier ministre def déclaration de politique général tegaat bi bilan wu Macky Sall tëggaat ko mënoo ko cee génne. xam nga mënoo leen séparer. xam nga li nga wax. yow kay xëy na neel rek sénégalais que Amadou da am cofeel ci Amadou. ndax c'est pas la première fois nga di ko jàppale. xam nga présidentielle jàppale nga ko dama lay wax cohérence mooy loolu gis nga nit. da nga fexe ba say kàddu méngoo say jëf xam nga lan moo nekkul cohérence mooy ma ànd ak Amadou Ba jàppale woon ko si présidentielle juróom fan yu mujj yi ngir intérêt Sénégal ak Touba. ñu tëgg suñ coalition waroon demal suñu bopp te mënoon a dem ñu seeti ay candidats yoo xamante nii ñoom dañoo bëggoon def ñoom coalition ñoom si seen jëm bopp amuñu réponse si ñoom ma contacté ay candidats yoo xamante ni bëgg naa ànd ak ñoom awumu réponse si ñoom ki ma am réponse mu ñëw seet si ñu digg na àndum nawle bu ma ko révisé jëm si feneen wala ma jéem wut leneen loolu mooy manque cohérence tey Pastef bi ngay wax. mais loolu laa lay wax yow kay asumel rek ne dama ne loolu mooy dama ne bu ma am toon nag moom laa ah, wax ah, Amadou Ba am nga ci moom cofeel dégg dama bu ma am toon mooy loolu mooy manque cohérence tey émotion tey Pastef bi ngay wax nga xam samay xarit lan muy Ousmane Sonko lu nekk ñu defandoo ko man ak moom élection présidentielle yi jàll ànduma ak ñoom parce que gisuma intérêt Touba gisuma intérêt Sénégal seet si wun ma jàppaluma leen élection législative yi ñëw adduna bi yëpp defe ni xëy na comme samay xarit lan damay ànd ak ñoom continuer topp seen ginnaaw ngir poste seet si wun ma woowuñu ma maanaam damay dem di ànd ak ñoom mais kooku. kooku Amadou Ba moo la yëg. voilà moo tax nga ànd ak moom ñaareel bi. Ah. mooy ñoom Khalifa Sall mais Khalifa Sall man la ma man mooy contacter leen. man de am naa tontuwuñu am naa coalition tontuwuñ ma. donc Khalifa Sall tontuwu la. déedéet. Euh, bëggoo ànd ak Macky Sall. déedéet Pastef tontuwuñu la waaw. Amadou Ba ñëw Amadou Ba tontu ñëw déplace ñu seet suñu wax ñu waxi gor war a ànd àndum nawle ñu jël suñu coalition ak coalition bi nga xam moom la tëggoon muy socialiste ak AFP ak ñeneen mais ñu ànd mais ànduma moom en tant que Amadou Ba wala en tant que ñeneen ñi ngay wax noonu dañu ànd en tant que coalition boo xam ne dafa ñëw ànd ak mu nekk ñu bàyyi ñun li nga xamante ne mooy suñu caution ba pare bi ñu ànd dañoo waxante woon lu wér dama ni ko man duma ànd ak nit mu di mu yóbbaale man soxluwuma dara defoon naa quinze millions sama caution dinaa jël cinq millions parce que sa caution yow. te noonu la nga 5 millions ah, ah. naa 5 millions ci caution bu parce que man dama nekk nit koo xamante ni amul lenn loo xamante ni dina ànd ak nit ki ëllëg mu naan ma maa la defal lii wala lii parce que nit ki boo amul indépendance financière wala mu amoo liberté. pour mën a jël sa bopp ses responsabilités su boobaa dañ lay yëpp te man la may njëkk a def mooy fu may dem fu nekk li ma yàlla may tudd dañ bu mukk mooy kilifa diine bi il faut loolu laay njëkk a yóbbaale may dem